ñetti bésu làmb foofee ca Kaolack ndangaan lay xewee ci digg Saloum du 28 au 30 mai 2021 drapeau du chef de l'État ñu war a tànn ay ndaw yi nga xamante ne ni dañoo xarañ lool ci wàllu làmb raison bu nekk daal di teew ànd ak sa équipe ñu xool ban raison moom mooy jël li nga xamante ne ni moom mooy drapeau du chef de l'État 21e édition ak Kaolack le comité national de gestion de la lutte le CNG moo ñu yëgal ni monsieur le ministre des sports Matar Ba dina fa teew le président du CNG monsieur Bira Sène dina fa teew champion le roi des arènes de tous les temps Manga de mi ngi woo ñëpp ñu ñëw teewee li nga xamante ne nii moom mooy vingt et unième édition drapeau chef de l'état waaye mi ngi ciy woo ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ancienne gloire yëpp mi ngi ciy woo ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy autorités yi nekk ci Kaolack ndangaan bés boobu bésu aada la ak cosaan Señor, roga mi no vague, mandio fogor sigue. Yum yare, caña roga mi no vague, mandio fogor sigue. Yum yare, caña roga mi no vague, mandio fogor sigue. Yum yare, ca Pape waaw ni ngeen ko gisee premier tirage baa ngi noonu Dakar Kolda Dakar ñoo yore seen tur rouge Zambala mooy seen capitaine waa gis nga ko Kolda ñoo yore seen bleu gis nga seen capitaine bi daaw wala daawaati jéeg ñëwoon fi nga xamante ni moo di Mbour pour drapeau chef de l'état waaw gis nga leen équipe Dakar arbitre yaa ngi noonu Grand Tizane waaw équipe Kolda baa ngi noonu Papa Ndiaye. aca première noonu ndeysaan l'infatigable de la lutte l'incontournable de la lutte Père Gora yàlla na jàmmam yàgg photographe bu mag a mag mag bi si sunu lamb photo bu ngeen gis sunu lamb image bu rafet bu ngeen gis sunu lamb ba ci ba ci ba ci ba ci Google Papa photo bu rafet boo gis en moom Père Gora moo ko photo yàlla na yàlla gën a guddal fanam wéral ay cëram à suivre. Fatick moo yore ceinture rouge Kédougou moo yore ceinture bleue ñaari coach yi waaw ku nekk yaa ngi wax di joxe ay consigne faxat na ko trois appuis wala lan arbitre waaw Fatick. Fatick daan na Kédougou da ko faxat mi ko Père Ndiouga Père Ndiouga ngi wax moom parce que am na benn avertissement mbaru ubbu sey bi mbuur la jóge su ma nee mbuur sama xel dem si Baye Salka waaw coach baa ngi wax ak moom ca arbitre sifflé waat na bas bas daw na jël ko bas jël na sawaay dina ko génnee wala sawaay bañ na bas jël na ko laalli da koy daan wala sawaay bañ na bas faqataat na ko daw na jël tànk ba jël na ko daan na ko bas daan na ko jël ba leer na Dakar victoire pour Dakar ordinateur Niar Galo Niar Galo mooy représenté Kédougou ordinateur ordinateur sol na ko faxat na ko trois appuis wala lan faxat naat Nergaloo mbotti na ko Nergaloo ordinateur Nergaloo mbotti na ko ordinateur bañ na Nergaloo ordinateur boo seetloo si taay ordinateur Nergaloo moo ko gën a njool xatar bi wala lan ordinateur jël na tànk ba koy daan wala lan wi ñaaraat na ko dajale na ko daan na ko ordinateur daan na ko jël ba leer na. Dakar Kolda Dakar Araboy Bawol takk na ko. Dakar Kolda Dakar takk na ko Cissé xatar bi na ko ko Ada Boy Baol daan na ko. moo jógee ñëw joor moom moo yore ngeen bulu ñuul li ceinture bleu Dakar Dakar Kédougou Dakar Kédougou aca général Malika oh, arbitre arbitre lu arbitre lu victoire pour général Malika victoire pour Fatick. ayca Dakar Kolda Kolda daw na war na ko ndombo Kolda war na Dakar ndombo war na Zambala ndombo dafa mën a bëre daan na ko Kolda daan na Kolda daan na. Kolda daan na Dakar jël ba leer na te gaaw. les yi nga xam ne ñoo accompagné le CNG ndax ñooñu Assane Ndiaye Fatou Ndiaye tey ñi nga xam ne moo financé les apports de financement avec. wàcc bu njëriñ bi ci wàllu. maanaam ñu ngi accompagné du gouvernement. président El Hadj Amadou Diop ñëw chaque fois zone bi dëkk ñu avant zone monsieur le ministre. si vous pouvez faire un tour aussi.

Kaffrine mbotti na ko waaw daan na ko kafrin daan na ceinture rouge Kaffrine ngeen jàkkaar lool waaw maatam Cheikh Ndiaye Dande Maayo moo ko représenté wala nga ne Cheikh Ndiaye rek dëkk dëkk bu ñuy naan soob jookul foofu la jóge acca waaw soob jookul dëkk Sitor Sène non loin de Ngothie yaakaar naa ne Papa Ndiaye suñu médecin bi fa la dëkk nga xamante ne yaakaar ne ku ko xam CNG wala ku depuis ba ma xamee CNG moom laa fa xam vraiment muy liggéey liggéey bu am solo ñu koy ziar de passage di nuyu waa Ngothie yëpp ay ca Cheikh Ndiaye daw na jël ko fils de Batling Cheikh Ndiaye génnee na ko fils de Batling génnee na Cheikh Ndiaye fils de Batling waaw moo am avertissement wala nga ne Mouhamadou Moustapha Sall moo joge Pikine di représenter Kaffrine Ndiaye fils de Batling Fils de Batling am na avertissement daw na jël ko moom mooy faqat ko Cheikh Ndiaye daw na jël ko Cheikh Ndiaye jëlaat na ko day dawaat moom Cheikh daan na la daan na la daa bañ a génn moo tax mu daanu daa bañoon mu génne ko moo tax mu daan ko mënoon na arrière génn sax pour mun si génn mais. El Hadj Birame Ndiaye 66 kilos. capitaine. waaw ñu ngi lay ziar Bougar sama doom du la yóbbu Bawol. waa gis nga de mooy loolu rek am kóllëre foofu rek moom moo yóbbu moo ma yóbbu Bawol. waa gis nga siin siin bu dem Bawol loolu kóllëre la rek. kóllëre la daal mais maa ngi lay bëgg. waaw maa ngi lay ziar bu baax leen. carrément moom kenn du la la drapeau chef de l'État miin nga ko. waaw waaw waaw miin nañu ko wax fa yàlla moom sëb ñu miin la. ngeen demoon Ouagadougou tamit jëlee fa trophée tamit. waaw dëgg la dëgg la génnoon nañu Sénégal dem jëm jëm fulaak fayda xama rek indi leen trophée yi parce que ñun amul lu ñu Sénégal si fier d'être sénégalais. leen di de passage. waaw ñu ñu wax ko ñun ñëpp yéen lañ ko. mais mais tey du yomb a eh! nga de. wàccee jaral loolu war la. waaw kon loo fas yéene andi tey. andi jom lan nga yëg bi nga ñëwee gis public bi. waaw am contentement rek. waaw. lay wax ñu lay ma leen fay. fu ma mënta dem si àdduna ñu ngi may topp. même fii ba Arabie Saoudite sax bu ma fay nara a dem dinañ may topp. aw ma seen fay di leen ña loo leen war a fayee kon. ñii. si kanam rawul bët. rawul bët. bëgg naa la de Boucar. borom Gandiaye. ak Kër Fodé ak. ak Kër Fodé ak. kese. yaa ngi si catégorie 100 waaw maa ngi si catégorie 100 xam nga xam nga ñi ngi ko seqal gars yi. bu baax. ñu ci bëri daan naa leen ci. Ah. waaw xam nañ kuy rajaxe de seetaan naa ubbil sa bët nga xool tey. kon bàyyi ma ne la bonne chance. ok waaw. ca Diourbel wala nga ne Kaolack Kaolack Sédhiou waaw Kaolack daan na Kaolack daan na Sédhiou Kaolack kookoy Papa Ndiaye Pape kooku sa tooma la moom la ñuy woowee Sokh Sokh. Sëlëmele daaw di leen fàttali ne moom moo représenté woon Thiès Thiès ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor titre bi waaw Sëlëmele kal na ko daan na ko Sëlëmele daan na ko. Kaolack daan na entraîneur Adjuma Diouf. waaw day ñàkk Papa Ndiaye. Thiès day ñàkk Sédhiou day jàll. dina am trois avertissement dinañ ko disqualifié. waaw Thiès ñàkk na waaye Fatick Papa Ndiaye ak Louga Fatick moo yore ceinture rouge Fatick ak Louga Louga moo yore ngemb Louga moo yore ngemb lu bleu li yore ceinture bleu moom ak Fatick Fatick moo yore ngemb lu ñuul li Papa Ndiaye ceinture rouge Fatick daaw na jëla tànk ba da daan daan ko Fatick daan na Louga waaw o oh, Dip Kor sañ daan ko Dip Kor daan na Boy ay ca jëlal combat Fatick Louga Abou Assef daan na jël ko sol na ko di ko jéem a forcé mbaa du la caxabal daan na ko wiñaar na ko daan na ko Abou Assef daan ko Lass Ndiaye ak Lacrymogène Elhadj Ndiaye Diawna faxat na ko trois appuis wala lan nga ne Thiès Ziguinchor Elhadj Ndiaye Diawna jëlaat na tànk ba waaw daan na ko plaqué ko daan ko Elhadj Ndiaye daan Rakouzal Ndiaye la Papa Ndiaye. passé fa nga ne Ngor ñaax bëgg naa la. waaw bëgg naa la Boucar. si loone waaw maa ngi nii rek. yaa ngi yëngal rek. waaw gisoo loolu. yaram bi daa tàng quoi. trop sax. bu mel ni da nga jàpp confiance. waaw ëpp na. yow moom xam naa miin nga drapeau chef de l'État. waaw incha allah waaw loolu moom miin naa ko moom baax waaw miin naa ko moom. yéen a ngi yéen a a a naa foog naa amagum ngeen lii quoi. waaw am nañ am nañ deux kii deux. waaw dix victoire quoi. waaw waaw ah. mais daa mel ne affaire maanaam du maanaam du yomb de. non du yomb nag mais euh, jege di daal. Ah, waaw jege di non non. acca bonne chance ok merci beaucoup. acca. Abou Assef ak Ngok. ah bu kon maa ngi lay bëgg. borom palmarin. ça va nice ah. doom day jogo jee. waay gis nga moo ngi de. daa jabar bàyyi ma waaye bàyyi ko garaaw. non non bul wax loolu sa waay la. mais naka mu waaw waaw ñoo ngi si de. encore parce tamit demaloon nañ Sénégal gagné ko. gagné ko waaw di sant yàlla gis nañ Sénégal nu ñu accueillir hmm. aha journée bi tey nag. waaw journée bi tey moom neex na ba pare quoi. a ngi ci course bi daal. waaw ñoo ngi si de. ngeen deux victoires. waaw amagum nañ deux victoires. ok merci beaucoup. ok. Dakar Dakar faxat na ko mu moy waaw temps bi jeex na Dakar day gagné par décision arbitrale waaw gagné na Malem Niani numéro 2 moo leen représenté daw na war na ko war na ko nombo da koy daan wala war daan daan wala lan 3 appui oh Tony Junior ak. ak sa waay lonku na ko caxabal da koy daan wala daan na la wala daanaka la trois appuis arbitre góor a oh daan naan la daan naan la da koy daan wala da koy daan wala góor a ñaa xatar bi daan nañ la daan na ko Kaffrine daan na Dakar.

génne Ndar général bu Malika moo représenté Fatick général sol na ko di ko forcé sa waay bañ na général zongale wala lan daan na ko général bu Malika daan na ko doole doxul jàmm mboru daaba nee leen dama leen yàkkamti nee leen yéen ñëpp daa defar bagage tey général Ngop l'infatigable Mendy mon oncle de cœur waaw kooku sama nijaayu bopp la Aïcha le champion bëgg naa la. Eh, bàyyi bu doom day doom day Ibrahima Diouf. oui bëre du nelaw. waaw gis ma xam nelaw. gis nga. war a xëy war a dal waaye du nelaw. bilaay sama koy bëggee de passage. waaw loo andi tey nag. waaw gis nga. Boucar comme ni ñuy indi rek. xoolal caméra bi moom Fatick la quoi. mais da nga a assurer tey ah. incha allah nangu woon daaw de. ah non tey tey day leer lépp. Ah. incha allah loo andi loolu nga andi. non lépp laa indi. loo andi ñi lay bëggee. lépp laa indi. fan sa ordinateur yi. waaw maa ngi leen di bëggee bu baax a baax. waaw di la léegi naaj daal. alhamdulilah sant yàlla bu. kon bàyyi ma ne la bonne chance. ayca incha allah ñaan leen rek. moo fete càmmoñ. mbaru Ibou Sey bi. Ngel John. coach super Ndiouga Dia. Dakar Kaffrine. Dakar Ngaljon 2 jël na tàng ba yéene ko ba si kaw dóor si suuf jël ba leer na jël ba leer na Ngaljon 2 moo jege Mbour mbaru Ibou Sey bi mbaru Baye Saliou Ka waaw mooy bas jarbaat la si Kase Diop. Aïcha wër na ko ndombo Tony Junior wala nga ne Goraña faxat na ko sawaay bañ na faxataat na ko sawaay bañ trois appuis wala lan waaw trois appuis yamat na. daanul Zambala wala nga ne Alioune Badara Diop moo féete càmmoñ ceinture rouge moo représenté Dakar catégorie 120 kilos moom ak Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye sàcc na tànk ba Cheikh Ndiaye jël na tànk ba xatar bi ko da daan wala arbitre njaax wala lan arbitre waaw kii bu la la kii bu la la waaw Cheikh Ndiaye daan na maayoo daan na ko Cheikh Ndiaye daan na Cheikh Ndiaye daan na. waaye daa mel ni daa mel ni du tee Dakar qualifié ba tey Kaffrine moo leen woon ginnaaw mooy Saër Ndama wala nga ne Ablaye Mbodj moo yor ceinture bleue moom ak Saint-Louis ceinture rouge Saint-Louis Kaffrine Saint-Louis Kaffrine Saër Ndama daw na jël ko wër na ko ndombo da koy daan trois appuis waaw Saër Ndama daan na ko. Kolda Kaffrine Kaffrine moo yor ceinture bleue fils de Batling wala nga ne Mouhamadou Moustapha Sall moo féetee ndeyjoor Kolda jël na ko kal na ko trois wala nga ne Mouhamadou Moustapha Sall moo féetee ndeyjoor Kolda jël na ko kal na ko waaw trois. Demba Sanoxo moo tent jël Demba. laa ilaaha illallaah Demba Sanoxo boy Kaja. jàpp na ko lay laxay la la laay la la lu xew lu xew am na lu xew Demba sànni ko dafa mel ne ñàkk na dafa mel ne Demba ñàkk na dafa mel ne Demba ñàkk na dafa mel ni Demba ñàkk na dafa mel ni Demba ñàkk na ci kanamu Boy Kaza lu arbitre Demba ñàkk na walla ñàkkul Demba ñàkk na Rouge waaw Rouge gagné Demba ñàkk Thiès moo jël moo fa raw moom moo nekk premier deuxième Tamba troisième Ziguinchor. li ko dalee ci poule B Diourbel moo jël premier deuxième Kaolack troisième Sédhiou poule C Dakar moo jël premier demi-finale nii la tuddoo Thiès mooy taseeg Dakar plateau A Diourbel taseeg Fatick ci plateau B daan na ko trois appuis Fatick Diourbel Fatick daw na jël na tànk ba da koy daan wala arbitre lu mu wax Fatick da koy daan wala oh daan na ko Diourbel daan na Diourbel daan na Fatick Dakar Thiès oh Thiès daan na ko Thiès daan na Dakar Dakar Thiès. Oh, na ko ba ci kaw yéenu na ko oh da koy daan wala lan trois appuis trois appuis wala lan bas. fallait saisir la chance waaw fallait saisir la chance aca Thiès wër na ko ndombo wër nañ Dakar ndombo wër nañ la ndombo wër nañ bas ndombo ba di nga si génn trois appui la waaw da ñaari wala waaw ñaari appui la boo defee trois appui rek Thiès ak Dakar arbitre lu mu wax 3 ba mat daan nañ la daan nañ la 2-0 2-0 pour Thiès. junior Dip Kor Sagne Dakar Thiès la 2-0 pour Thiès Dip Kor Sagne moo féetee càmmoñ moo dëkk dëkk bu ñu naan Boyar moom ak Tony junior la wala nga ne. Dip Kor Sagne ak Tony junior. Tony Junior wala nga ne Gora Niang moo féete Ndeyjoor moo dëkk Jender di représenté Dakar Dakar Thiès 2-0 pour Thiès Tony Junior bu la sañ daanee da ngeen di ñàkk jël na tàng ba Dibkor jël na tàng ba daan na ko Thiès qualifié na final Thiès qualifié na final victoire de Thiès boy ginnaaw gaañu quoi dafa doon lu ko oh ba grand Malick arbitre oh Ada Boy Baol génne na ko génne na ko arbitre di woowaat Gandia Fama Abou Azef Gandia grand Tidiane la Bilal Ndiaye Abou Assef wala ma ne Gandia Fama Abou Assef Gandia Fama Abou oh El Hadj Ndiaye daan na ko El Boy Baol El Hadj Ndiaye daan na Ada Boy Baol 4-0 pour Fatick pour pour Thiès 4-0 pour Thiès. arbitre sifflé na Gandia wala arbitre lu mu wax arbitre signalé na arbitre sifflé mu wax arbitre signalé na signalé na Assef mu mel ni Gandia Fama am na avertissement bu wala lan 3 appui ordinateur moo leen woon ginnaaw mbaru Ibrahima Diouf bi ceinture bleue Fatick ak Diourbel ceinture rouge Radiakhé ñaari bëri ñaari bëri kat a daje ku daanu moo tax calcul bi métti ordinateur de droit contre Radiakhé de foode wala nga ne de Gandiaye rek wala nga ne Mbélo Ngouth ba tey ay ca Radiakhé nee na lu ne sama karam dama koy rajaxe ordinateur nekk koo xamante ne il nekk champion daanan tegale ñetti at yoo xamante ne mooy ëppale trophée moom moom du Faye waaye ki mii bëreel rajaxe daw na jël ko jël sol wala lan laali wala lan ordinateur bañ na laali na ko jël na tànk ba wër na ko ndombo ordinateur bañ na xatar bi na ko da koy daan daan na ko rajaxe daan na ordinateur Diourbel qualifié na Diourbel qualifié na Diourbel na oh rajaxe ordinateur jommi na ordinateur jomi na ci arbitre sifflé na général bu Malika moo féete ndeyjoor moo représenté Fatick ceinture bleue moom ak Boy Faye la général ak Boy Faye Boy Faye moo leen woon ginnaaw général daw na jël ko Boy Faye bañ général Boy Faye général bu Malika Boy Faye Boy Faye Diourbel ceinture rouge jël na tànk ba mu moy Boy Faye ak général Boy Faye général bu Malika Boy général Boy Faye pàdd na ko waaye dara Boy Faye ak général bu Malika général laqat na ko waaye Boy demul Boy Faye jël na tànk ba ko takk Boy Faye bu Malika Boy Faye général daw na jël ko da koy génne wala génn nañ saaku ya général Malika Boy Faye général bu Malika Boy Faye Général Boy Faye Malika Boy Faye moo féete càmmoñ mooy représenté journée mooy représenté Diourbel dañuy wax ne Diourbel qualifié na ba pare général jël ko mu may Boy Faye remplacé ko sol ko général ràcc na Boy Faye sol na ko général ràcc bëre doole wala lan caxabal wala lan lalli Boy Faye général wër na ko ndombo trois appuis Boy Faye daan na ko Boy Faye daan na ko Boy Faye daan na mboru Babacar bi Boy Faye daan ñetti bésu làmb foofee ca Kaolack ndangaan lay xewee ci digg Saloum du 28 au 30 mai 2021 drapeau du chef de l'État ñu war a tànn ay ndaw yi nga xamante ne ni dañoo xarañ lool ci wàllu làmb raison bu nekk daal di teew ànd ak sa équipe ñu xool ban raison moom mooy jël li nga xamante ne ni moom mooy drapeau du chef de l'État 21e édition ak Kaolack la comité national de gestion de la lutte le CNG moo ñu yëgal ni monsieur le ministre des sports Matar Ba dina fa teew le président du CNG monsieur Bira Sène dina fa teew grand champion le roi des arènes de tous les temps Manga de mi ngi woo ñëpp ñu ñëw teewee li nga xamante ne nii moom mooy vingt et unième édition drapeau chef de l'état waaye mi ngi ciy woo ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ancienne gloire yëpp mi ngi ciy woo ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy autorités yi nekk ci Kaolack ndangaan bés boobu bésu aada la ak cosaan